<laughs> asalaamaaleykum si ànd na mi di gannaaw ba leen nuyoo di leen siyaaraat bu baax a baax kenn ku si nekk sa tur euh, sa ak sa sant fekkee bi mooy sa première vidéo nga abonné fii nga xam mooy chaîne bi tey kiñ toogal duñ ko présenté si même réew saa su waxee nag gaa yi déglu ko am na loo xam ne day xew si réew ma génn def ay sarax génn def li nga xam ne mooy lu waral bés bi tey euh, suba Sénégal war a football li nga xam mooy Côte d'Ivoire lu bëri xew si réew mi ñu fas waxtaan ak moom Cheikh nuyu naa Cheikh maa ngi lay ziar bu baax ziar ñëpp. waaw ziar ñëpp waaw maa ngi nuyu ñëpp nuyu kilifa diine yi nuyu ñëpp nuyu Seyna ziar Seyna Seyna Limaamu ziar ñëpp mm. waaw yow moom mas Sénégal bi moom tey gii boo ma seetsee rek man dama siy sawar wax mm. parce que mas yi ma mas a seetsee li ma a lépp suñu borom def na loolu moo am mm. waaw te man lii ne si man suñu borom moo ko def loo xam ne lu may bàkkoo la comme tey jii man boo ma seetsee man tey war naa see mën a wax gars yu bëri ñëpp koo lañ ma téléphone ñëpp di ma laaj Cheikh mas bi nan lay demee non non instant foog ma def émission pare bañ doog see wax bu ma doon xaar benn kilifa diine moo ma moo ma jox benn sànq te bëgguma tudd turam mooy nag yu mooy nag yi te bëgguma tudd turam te nee na nee na instant yi bi mu def nii daa bëgg ñu yem suñu ñaan ma liggéey ci équipe nationale te yàlla dañ ko si loolu laa ne moo tax instant bi may oo ma ne la instant dafa am benn nag war a ñëw bu nag bu ñëwee boo mu ooyee ñu doog def émission bi instant nag maa ngi nag si liggéey bi la laa bëgg a jëm si kanam kii moo bëgg a nag yi su ma ko reyee def sarax jox ci kàttan suñu borom moom Sénégal bi dina moom lay ñuy ñaan ah, nga xam mooy si. tey ñu war a fubal ki nga xam mooy Côte d'Ivoire nga xam Côte d'Ivoire nag ko ko dégg xam nag mooy équipe bi nga xam mooy organiser affaire bi 3 points lay génne Sénégal génne li nga xam mooy 9 points est-ce que yaakaar nga loolu match boobu dina yomb si Côte d'Ivoire wala si Sénégal. non match boobu noonu match boobu match boobu noonu dina dina dina yomba Sénégal du yomba Sénégal. waaw instant bii daal gars yi liñ mën a def mooy liñ mën a def mooy lenn ñu yokk a ñaani yokk a ñaani buñ defee li ñu war a def moom man sarax bi ma soxlaan def naa émission du matin su ma ko reyee ba pare ba def sarax si kattan suñu bor moom Sénégal dina am ndam mais dina métti nag trop mais Sénégal dina am ndam. waaw tey ñu génn ni nga xam mooy mara yi nga xam ne dañoo génn ne ah, Sénégal Côte d'Ivoire da koy dóor tey en tant que mara te gis nañ ki si mel euh, ki nga xam mooy Karamba génn wax. ma ne match bi ba mu ba mu si toll benn sëriñ génnul wax tey ñu am yeneen sëriñ yi nga xam ne dañoo génn ñu ne naar yi ñooy jël li nga xam mooy coupe d'Afrique bi tey ñu nga xam ne ñu ne Sénégal du génn li nga xam mooy huitième de finale bi. non man man li ma waxoon ak yow si émission bële passé laay delluwaat nee naa la man Cheikh Al Maktoum borom kaasi borom laxderi borom tabdil li ma la waxoon bii passé man quart de finale laay wax quart de finale laay wax jamono jii nii football suñ borom dama si may. démb rek maa jël coupe bi stade Pikine maa dóor 3 dañ mën a wax pour dalal xelu nit ñi moo gën toog ñuy toog naan ay Sénégal dañ koy gagné ñun ñëpp ay sénégalais ñu te deretu Sénégal mooy daw suñu yoon. kon waroo kaa wax. te fii ah, yàlla moo fi ne suñu borom moo ne fii nii gas di liggéey. am na ñoo xam ne tey bu fekkee équipe nationale yóbbu leen nañ téye seen kurus ñu ñaan mais tey yow bu fekkee yóbbu leen équipe nationale nga toog fi di yàq Sénégal dañ koy dóor ay Sénégal dañ koy dóor 1-0 loolu loolu soxor la i ñaan la man maa ngi ne fii daw noonu bàyyi la ma liggéey li may liggéey pare am na nu muy demee mën naa dem final mën naa dem demi final parce que génn suma xaalis yi ko def équipe nationale bii nii ay millions perte naa ko si mais tey dama koy def ngir jàppale sénégalais parce que man sénégal la parce que sénégalais ñoom bu ñu amee ndam ñun ñoo am ndam ñun ay sénégalais la comme tey nañ booloo ñu ñëpp ñu ñaan yàlla may ñu ndam suba si kàttan suñ borom si barki Seydina Limam yàlla dinañu may ndam man moom xaw ma la ragal man Cheikh Al li ma la waxoon rek quart de finale wax mais dama gis ne da nga ma waxoon yow quart nga wax te ñu toogaat Sénégal a ah, dajeeg li nga xam mooy Côte d'Ivoire huitième de finale te yow quart de nga ma nga ma dig ba nekkul ne quart de finale lañ nar déggoo li ma la wax bu ñu toogee maa yow quart de finale bi ma expliqué buñ toogee quart de finale yi buñ toog buñ demee quart de finale après man sarax yi ma soxla kon gars yi nañ ma indi leen nag wi fu fuñ ma joxaatee sarax yooyu ma ma jàppaati Sénégal amaan ndam te man li ma àndal moom li mu soxlaa man su ma koy joree damay may ndam muy suñ borom. mooy yaakaari jaam ñi. tey match bi nga xam ne mooy Côte d'Ivoire ndax ñu ci bëri seen xel tey na si si mbir boobu ndax gars yi dañoo ne bu fekkee fétis Côte d'Ivoire mooy moo ko dàqale tey li nga xam ne dëkk. yii moom tey boo toogee sa gàll tey ñu jox lay ginaar nga lekk ba suur gisoo dara mën nga toog ne Sénégal dañ koy gagné. football jamono ji nga gis ka yombul wax naa la ko émission bi passé du ñëpp ñoo mën a gis football. football mën nga mën nga téye mën nga mën nga yor sa deux heures football du noonu football am na ñoo xam ne suñu borom moo leen may si football ñu mën a gis si football ba pare yor ay jinne te luñ la wax si football da da gis sa waay mooy suma treizième coupe si kattan suñu borom bëgg naa bëgg naa jëlaat quatorzième coupe boobu da nga see boole quinzième coupe bi da nga ma la wax quatorzième treizième coupe laa jël quatorzième coupe laa bëgg si kattan suñu borom billaahi wallaahi taalaay man Cheikh Al Maktoum loolu laa bëgg instant bi sax yaa ngi may tàngaloo nii billaahi wallaahi taalaay man am na ñoo xam gars yi bëgguñu gars yi man man gars bëgguma ñu yëngal ma. gis ku ma façon mara bu ne di def di wax ñoom buñ ma yëngal man dama yor loo xam ne damay taalaate. man dama damay taalaate man. xam nga sama tey ñu ngi maa ngi gis média ku si ne yor seen di wax buñ ma wax loo. te instant yi sax dama commencé ne si àll nii barki alxuraanu karim instant bii dama commencé ne si àll sax fi ma taxaw nii rek mën naa jekki saay créer ay kaas di ko lekk billaahi wallaahi tàllaay. gaa nañ bàyyi loolu waaye ay 4 heures du daal dinaa def sarax bi. sarax bi daal su ma ko defee dinaa def sarax bi su ma ko rayee pare dinaa dem saraxe si kattan suñ borom muy nag wi ngay gis nii nag wi te dëkk bi fan yi amoon na ngelaw amoon na ngelaw lu garaaw lu fi am. ngelaw bëggoon a ñëw ak yow sax ngelaw bi ak li nga xam ne rey li nga xam ne dafa bëri si dëkk bi. yow toog nañ bi passé bi may defee émission lan la wax ma ne instant bi dina am ay dee yu bëri am. toog nañ ma wax la ko man ne la Sénégal dina am ay dee yu bëri dina am ay rey yëpp dina la ko ne la façon def-def bu garaaw bu ne di ko gis te instant bi parents yi nañ téye seeni doom instant bi ku si mën a saraxe nga saraxe instant bii nii instant yi dëkk bi ni mel ni dafa yéeme te gars yi nii gars i ndam da leen jaral loo xam ne sax gars yi xoolu xool ñu ëllëg am na ñoo xam ne xaalis da leen jaral tey jii mën nañ la rey kon naanam ndox te loolu baaxul man liggéeyuma lii parce que man li ma liggéey man dama siy xool suñ borom dama siy xool ëllëg parce que tey su amee njaboot liggéey boobu mën na retour si moom man tey gars may tegal ay millions def may liggéey yu bon ma bañ ba si élection yi ni maa ngi si nag maa ngi siy liggéey am na ñu may liggéeyal quoi mais man bëgguma bëgguma sénégalais xam ko mais maa ngi si moom maay liggéey mais sama liggéey may liggéey moom liggéey bu set laay liggéey waaw su ma su ma liggéey ba pare bu ma su ma liggéey ba pare guddi gi su ma nelaw ba yow ay 5 damay ñëw si seexu mi mu defal ma kafe defal ma buy te moom buyam bii noonu la neexee bàyyi seexu sànq rek ci laa jóge buy bu neex a ah, bi la rancé mën a mën a mos ma leer ne dañ yàgg sëñ bi dafa dafa am lu muy jël buy bàyyi seexu bi si laay ne mu ngi nii ak sëñ Saliou hmm. mu ngi nii seexoo ngi nii kafeem kafeem noonu la garaawee café gi après naa si ñam mais dañ bugg a xool nga nga kii comme nga ta ñu ne États-Unis Angleterre Allemagne ñëpp kafeem fu ne lay dem day dem saba Dubaï léegi seex xam nga temps bi lu si des bëreetul maanaam nga tënk rek nuyu ki nga xam ne moo ñu dale si place bi nu mu tudd sax Cheikh. Baye Cheikh Baye Cheikh. nee naa loo jaayul café baaxut waaye gisaguma sama café mais euh, bu soobee yàlla fekk comme nga quart final nga ma wax te suba la di football nga woo ma ndax ndax bu ma àndee fii kat damaa tiit ndax yóbbu nga ma fu ne lii rek nga ma deseel. waaw tey jii ñu ñu nar a wax ci li nga xam ne mooy nga teg dernier kàddu rek nuyu ñi nga xam ne man dama fay sama doom day xaal yi borom car rapide. te xam lii gën a garaaw man café gi dama koy naan di gën a amaat ay àll. lu yéeme damay naan café gi ba pare di gën a amaat ay àll gi saa maka ko naanee rek damay jekki saa di taal li muy réer te te du ma yor torse gars yi nañ ma nañ nañ bàyyi ñuy def saa damay toog sama néeg di bind saa damay am man damay dégg ay ay baat yoo xam ne doo comprendre sax te man dañ ma tere loolu man bu ma tàngee rek bu ma tàngee damay bëgg di taal ay alibi te man loolu laay bañ gars yi nañ mbooloo mbooloo mooy doole yàlla may ñu dem suba te sarax bii suba bu ko kenn fàtte. sarax bi bu ko kenn fàtte muy ñetti kilo dugub ak ñetti kiloy mboq kilo dugub bi jigéen gu ne en état lañ koy sarax wala jigéen guy namp wala jigéen gu am ay seex mboq mi góor lañ koy jox ku mën a génne loolu suba nga si kattan suñ borom yàlla nañu may ndam yéen ñii fi nag sarax bi dama ko dama ku si ne sa kër na ko génn ku ne états uni wala Allemagne na nga génn sarax boobu yàlla daal dinañu may ndam. appel bi nag ñëw na ñu ngi sant nag Seydina Limam bu baax appel bi ñëw na yàlla na si yàlla def xéwal yàlla yàlla ubbi buntu wërsëg waaw di ziar bu baax kilifa diine yëpp waaw di waaw maam Njara suñu maam maam Njara yi waaw kooku kooku kooku bokk na si ñu may dooleel ak Seydina Limam ñooñu ñooñu ma leen ma leen fay te fi nga toog nii xam nga ne fi nga toog nii dafa garaaw. ma seex xam naa dafa garaaw tuuti mais dama bëgg dama bëgg rek xam may rek. ma maa ngi nuyu képp koo xam ne jàpp nga. damay gis nga fi nga gis ni bërëb bu garaaw nga gis fii ñi ngay xëy rek ngay gis ni dañuy jëkk saay rek doon ay mala songa la waaw dégg ngeen li Cheikh wax li nga xam ne moom la wax si équipe nationale di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam ba ñu mën a conférer li nga xam mooy. ci titre sax Cheikh Baye Cheikh. du nuyu xaale borom kaaraab. man da ngay man saa yi ma defee émission gis ay mayo yu bees nga sol. waaw mais ba léegi booy sax mënu maa sol mayo. sama mayo day ñëw ma wax. sama yu bëri war a ñëw ay ñoom Pathé Ciss ñoom Sadio Mané gars yi ñoom ñëpp war ma jox ay mayo. waaw mayo moom quart de bu ñëwee dinaa ko jox gars man mayo gars yi ñoo may sonal lekk. ah kon baax na comme que mayo ñëwee rek mooy lool ah, di jaajëfalaat ñëpp rek di leen jox di daje ba gannaaw ba suba incha allah